waaw yaaw nag sœur la xarit la dëkkandoo la ndax man ak moom sorewuñu dara mu nekk nit ku baax nit boo xam ne ni mu toll rek la toll te keroog ba ñu wootee fële ci Pikine di sant Serigne Fallou dafa bàyyi léppam ñëw wuy suñu euh, euh, comme maam nag mu ngi ci yoon bi te mën naa ñëw mën naa bañ a ñëwit ndax fi ñu war a jaar dafa bari moo tax tey ñu tas ma ñëw fi pour man ñëwal fi tamit euh, ngir maam Ndiaye Savon parce que barki démb ba ñu wootee Pikine daa dagg léppam ñëw waaw loolu moo tax ñu ñu alors kon mën nañ xaar mu daal di ñëw moom fii. waaw mën na ñëw bu fekkee tamit yoon bi xaw naa xat ak yooyu bébé Eva ngi fi te bébé Eva maam maam mooy bébé Eva. waaw benn la rek. ñu bëri lañuy wax ne maam bu moo tudd Diva du ñëw parce que daaw dafa ñëw am ñu mu àndaloon loolu moo tax sax ñu daal di yaa awal ñu daal di préféré kàmb mu defee ko fii est-ce que loolu mu yàq dara. waaw man nag genre wax yooyu wax dëgg yàlla. Euh, du ma ci du ma ci sooba bu baax parce que xaw ma nu mu dee du lu ma yaaw wax du lu ma maam wax mais maam yaakaar naa ni yéen xam ngeen maam euh, wax yooyu noonu terewu koo ñëw ci appel waaye fi mu war a dem bari na fi mu war a jaar bari na ba tax na moom ci turam ñëwee naa ngir man de bébé Eva waaye ñëwee naa fi ngir maam donc kon man yooyu noonu wax dëgg yàlla gaw ma ko. alors bébé fu mu toll mel ni fu mu toll nii moo yore bëri moom tamit parce que coow li bëri na diggante moom ak donc ñu xam xam ko. mu daay takk jabar sa tur gën see fës da ngay amoon benn relation loolu du ma ci waxaat parce que démb waxoon naa ci ba pare. génn naa def sortie wax ci. waaw li ma ci waxoon démb bu ngeen duggee di ngeen ko gis bu ngeen ko tàppee yéen di ngeen ko gis. wax naa ci ba pare te du ma ci waxaat. d'accord dégg ma. waaw loolu laa wax ma ne ma ne waxoon naa ci démb ba pare indi indi naa ci ay leeral du ci waxaat parce que euh, sama yaay nee na ku miin sa xuloo yab la te nit boo waxee benn yoon pour man jarul waxaat gis nga sénégalais yi buñ la bëggee gëm buñ la bëggee gëm même boo deful sorti toog ne patt buñ la bëggee gëm dañ lay gëm buñ la bëggut a gëm boo jàppandu woon ci air bi di wax taxul ñu gëm la donc li ma wax démb rek moo ci nekk yàlla xam na te man bu yàlla xamee rek keneen ko xamul amul solo waaw mais li ma ci waxoon démb ak bërki démb loolu laa ci wax ba tey moom frère la xarit la nit ku baax la waaw yàlla na waaw mu doon sëy yuñ takkee ci aras ci barke Seydina Muhammad ci barke Alaaji Fàllu mi ma yaakaar man yooyu sax ay ree la may def ah, parce que ay détails la ci man. d'accord mais nañ gis tamit euh, rakam génn ne maanaam Mouhamed musul xam kii di bébé Fall. musul xam kii di bébé Eva bébé Eva waaw peut-être ci wàllum sëy bi ngeen koy wax moo tax mu wax leen loolu parce que man junior sama xarit la te xanaa man du ma nekk ci loo xam ne junior xamu ko wala Mouhamed nekk ci loo xam ne junior rakam xamu ko loolu mënul nekk. léegi rumeur bi lan ko créé lan moo waaw mais je ne sais fii àddina la ku ñu noppee wax ci yow yaa nga fay land man damaa jàppoon ni fay naa mais ndekete maa ngi xew ba léegi. waaw pour man maa ngi kër fayeen mais ndekete maa ngi xew ba léegi. mais lan moo tax lan moo tax. waaw mais yéen xanaa sama kii bi gisoo leen ko. sama vente en ligne bi gisoo leen ko. Eva bi dalu leen. gisoo leen Eva mën na jaay ay yére yu jeeg te li may sol lay jaay xale yi hmm. waaw wax leen ci loolu nag ba tay tey leen ci loolu ah sëriñ mais retour bébé Eva loolu force la mais sëriñ mënoo nekk di di continuer di tourner di tourner di tourner nekk ñu ci sëriñ mais ñu ngi ci yére yi hmm. lu baax ci réew mi ñoo koy jaay hmm. lu baax ci réew mi ci Eva Shop nga koy amee. d'accord loolu mooy Eva Shop instant yii nii may na la publicité boobu gratuit alors maintenant eh, mais Eva euh, dañu gis ñu ni. gannaaw ba nga déggee maanaam Mouhamed takk na da nga defoon ay crise bay jooy loolu yëpp est que am na. moo tax waaw mais ñun ñun ñoo delloo chaise yi ñun ñoo delloo chaise yi te xanaa nit ñi duñu toog ñu leen di yëkkat di leen teg ci suuf di delloo chaise yi man ci ñu delloo chaise laa bokk te biir kër maam Ndiaye laa fanaan barke Alaaji Fàllu Mbacké man xale laa. ba pare doon taaw sama biir kër doon fa doom bu góor ma am ñaanu wayjur nag man dama am ñaanu nday yaakaar naa ne góor ma war a jooyal waaye waruma jooyal góor ndax dama toll ci sama bunt àddina man ñàkkaguma dara de man mën naa am lépp sama àddina jooy pour xamal góor pour te sama yaay bi jéeg jépp di yeewu fajar moom mu yeewu fajar ah tamit nañu arrêté. man mosuma man xam xam sax xaw ma nu mu mel. mais noo gisee Mame Ndiaye léegi xam nga nan ngay def da ngay bàyyi ba euh, maam ñëw maam a ngi noonu ci woon bi bu ñëwee nga dégg ko micro yi laaj ko lii ngay laajte nii man da ngeen may laaj ci man ma tontu leen ci man ngeen laaj ma ci appel bi ma tontu leen ci appel bi. alors nan nan la beneen question bi nga xamante ni si yow la moo si diggante ak ñànku la moo si xew. ñànku kooku papa la kooku wax naa ci démb moom tamit te wax gi bu baree rek après mooy loolu ñànku papa la tey ak suba ak ginnaaw suba kooku daray àddina duñ tàqale parce que xam nga lan moo tax li ma waxoon démb laay waxaat tey man xaw ma yaa baax démb tey ma génn ne la yaa bon man du ma nit boobu moo tax ku ma xool ba ni yow la rek yow la li may tàqaleeg yow yow yaa koy def est-ce que dégg ma te moom defagul lii tax may tàqalikoog moom maa ngi ci àddina du luy jeex. Hmm? waaw di sant di sant sénégalais yëpp di leen sant yéen ji ndax lu lu feeñ ci réew mi yéen a ko feeñal noonu ngeen garaawee ngeen bu ngeen dékkee nit ki micro moom di ngeen ko wax loolu ne di ngeen wax bay jafandu waaye tamit may wax xale yi ku ci bëgg ta wax bu mu wax yéen gën a garaaw ci àddina doy ngeen waar am ngeen nu ngeen mel taxaw leen ngeen taxaw leen taxaw waaw léegi moo tax ma wax leen loolu moo tax ngay jooy te yow jooyoo moo tax maa ngi jooy dina mel ne Ah, ma jekk nag benn di def sama vente en ligne bi jongo ma de waa góor war a jooy ndax man góor ñaa ngi jooy de góor ñaa ngi jooy de man jooylu man jooylu ma benn góor. mais Mouhamed Tour mën na kon jooy ba léegi parce que yàlla ma am ma. am na am ñaareel ayoo bàyyil Mouhamed na fan la takkee ñaareel ah man aawa rek. man mosuma dund lool génn leen ci yi ngeen ne man aawa rek. <laughs> ñaareel yàlla tere. Mouhamed dégg